sifflé na combat diggante Yakhou Ndangaan Pape Demba Djifir Pape Demba moo féetee droite Yakhou féetee gauche ngeen moo ngeen bu lumus ñu déglu seen combat ba xam bëre fan lay féete waaye Ngor yëngu leen naa ko siyaar naa ko mbaa Ngor fay borom jawin bëgg naa ko doomu ndeyu gaynde waaw waaw di bëgg laatir fay borom njaanjaay Fatick bëgg naa ko siyaar naa ko waaye Grand Issa Touba borom ngeesin bëgg naa ko doomu Ngayo Xene Khalil production rawatina Grand Ismaïla Ndiaye aca ñu déglu seen combat diggante ak Pape Demba ñuy bëgg waa Jifir ba képp kuy di bëgg Pape Demba rawatina yahunda ngan le petit frère do mo jalam ko am espagne ba le petit frère do yahunda ngan ngi nonu le petit frère do lay ñombom champion bi yahu wanda ko do mo daan na Pape Demba Djifiir de eh, eh.